الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويحلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على خير مرب ربى أصحابه بالعلم والعمل ورضي الله عن حبد الله وخديم الرسول القائل رباني النافع الوهاب أذكره ما دمت عيّا بحول الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جليدي مبكي طالبي نيجي لين دي نيو دي لين سيارة دي لين دوكيل تي ويرو تدوي دي لين بالو حق دين بالاق دي نان سنو بروم مبالي نبال di jiital ñaanal saahibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Muhammadul Muntaqa suñu boroom yokk aw fanam ak wéram gën koo kattanal ba liggéeyu lislaam bi ci loxoom mu yóbbu ko fu kaw njort yëpp te nu ànd kook moom ci barkeb sëriñ bi noonu lañ koy ñaanale Cheikh Ahmadul Muxtaar muy jëwriñu Cheikh Muhammadul Moustapha ak njaboot gi yëpp di nuyu kilifa yi fi teew yépp ak njaboot gi xam naa di jëkkanteek waxtu wi nag doyloo nuyóob ñi nga xam ne ñoo jiitu tamit nuyoo bu matale di jaajëfal bu baax bokk yi nga xam ne ñoo jiitu ci kàddu gi ci xam-xam yu am solo yi nga xam ne génnee nañu ko fi muy fàttali bu ko mat sëkk di yëg ne la taxoon al lajna astaqafiya di leen tànn def nañu ko kon jërëjeen jëf xam naa sëriñ jili xëy na unwaan bi dana gën a yaatu tuuti إسهام الطريقة المريدية في مجال التربية والتعليم خاينة داي غنى ياترك كي توبا واي كي سرين بي لأن كي نيكو توبون سين كونتربيشن كي تربية التعليم واي نخاص كي المدارس القرآنية والمجالس التعليمية لولو day loo xam ne muy jàngale ak yar euh, dafa mel ne moo taxoon suñ borom yónni yonent yi aleyhimu salaam jàngal nit ñi ba ñu xam ñu yar leen ba li ñu jàng ñu di ko jëfe loolu moo nekkoon mission wu yonent yi waaye lu ñu gis mu jag ci àddina it loolu moo ko jagal dafa mel ne basariya ci boppam moo munta ñàkk ñu jàngal ko yar ko dafa mel ne li ñu alxuraan di nettali daa mel ne jataa yópp suñu boroom ak yeneen mbindeef fii mu bindoon jëkk mu nam bind suñu maam aadama wa allama aadama al asmaa kullaha jataay boobee dafay tegtale jàngale di wane soloom di tegtale lu munta ñàkk la yeneen sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy xaatimu nabi inaw imaamul mursalin moom it mission dikk di buy mottali ña ko fi jiitu woon di gindi nit ñi ci ak réer teg leen ci siraatal mustaqim e, wan leen ak mbaax yar leen ca ni ko aaya boobu ma tudd rekk tam ànd ak yeneen moroomi ñaari aayam walla ñett yoo xam ne yépp li muy teg tegcale mooy ab yonent bu ko yàlla di yónni ngir mu jàngale waaye ngir mu yare ngir mu jàngale waaye ngir mu yare yatlu alayhimu ayaatihi wa yuzakkihim loolu foo dellu ci ayat ya maanaam moom rek lay tegtale yonent sallallahu alayhi wa sallam dégg gi mu dégg loolu tax na ba mu jógee rek la ca dal di jëm te ne dara du ko ca tee àgg xupp du ko dëpp xëpp du ko dëpp xadiisam ba ca bañ koy dikk nguur tam dellu gannaaw ci tawxiit bii muy woote ci jikko ci defaru te fekk ñu nekkoon ci société lambi golo ku man sa moroom duma te bam dikkee bëgg a indi àddalu muy maandu xam ngeen ne mag ña ñoo jóg ne ko jaral nañu sax tey fonction yi nga xam ne mag guñ mag ci askan wi moo taxoon ñu ñu yore ko ñu jiital la te lii ngay wax nga teg ko ci suuf parce que yow da ngaa nar a foq suñ nguur ndax lambi golo ku man sa moroom daanu ku am doole da ngay noos mu taxaw taxawaayam bu réy ba ne suñu tegoon jant bi ci sama ndeyjoor bii weer wi sama càmmoñ bi ngir ma dellu gannaaw ci li may woote déedéet kon loolu di tegtale it ne woote boobu bu rëy la ca la nekk Makka bi mu agsee Madina te xaw a amuk yaatu tuuti gis ngeen ne lam njëkk def mooy dafa taxawal jakka ja muy jullikaay ba di jàngukaay ba di parlement ba lépp loo xam ne ittey jullit ñi la ñu di fa dajee di ko fa doxale orientation yi di fa bàyyi ko orientation yi di fa bàyyi ko mu dal di jàngal ñi mu àndal yar leen e, def ci ñoom li nga xam ne moom la ko boroomam sant moom la ko boroomam sant jàngal leen yar leen ñooña daal di fay bàyyi koo nekk ay jàngalekat nekk ay yarekat ñooña bàyyi koo fa nekk ay jàngalekat nekk ay yarekat di tasaare njàngale mi ci àddina bi muy tasaaroo di dox go di dog goxi àddina bi fenn fu nekk ñu di ko fa jàllale ci seen jikko yu rafet ci seenu melokaan ku leen gis xemmeem leen ba loola di dox ba agsi ci sowu jant agsi ci suñu mag ñi ñu dalal ko bu baax a baax waaye nag ba muy dox ba agsi ci Abdullahi wa Xadimu Rasul nag mu ne ca kat yiw waxtu nekk may fàttali jàppiin wu ràññiku wi nga xam ne jàpp na ko ci ba mission ba di tàmbali suñ borom dafa waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko fastamsik billasi uuhiya ilayk la ca aju lépp waxtu wi dafa gàtt waaye li ma yitteel mooy fastamsik jooju nga xam ne moom la ko suñ borom tàllale yonent bi moom la sëriñ bi nangoo tamassaktu bil kitaabi abdan lil ali kon dama bëgg a wax ne lawoon ca fee rek mooy li ci fii mu gàttandu mission bobu gàttandu yin wu ràññiku jeme ci léppam xamne li dara mënu ko lijeenti lu jàngale ak yar mu wax ne himmati ya irtaqat li taxlimi al ulum li wajhi sil arsi al muaddim muqaddimi al alim ya irtaqat so gisee mu wax ko rek lu reey tax himmaté irtaqat ci Serigne Touba ñu ne ngir lan mu li ta'limil hulum jàngale xam-xam rek fum tay tey tegaat li khidmatin nabi lolu kon xëy waxtu wi xatna lol waye jappon nañ ne dana lacc mom serigne bi nga xamne mo yor yitte ji moy kan lolu dootu fi xajj ak taxaway bi mu am nga xamne ku ne xam nako e taxawayam bi bi mu xolé yëf yi ta xamni lañu imam Malik doon wax ne li defaron xeet wi ci bu njëkk mo koy defarat ci bu mujj yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam bañ ko bëggee galankor dogu gogu mu am momit mom la amone ci liggéeyam bi nga xamne lim ci fekkone cim jangale amana amna lu ci tabbi sax di aada net li ba siiw na sëñ Lamine Diop Dagana bin na bin nagn ko fu bari bam xeye bis dajale wa daara ja beug indi njàngale mu andaku akub mu wax ne ku fi njàngoom kese indi won bismillah na seeti fenen ko xamne nak da nga am itte amuk dogu nam sa borom te beug dem na tok ñu and daldi jox xam-xam itte ju rëy rëy rëy joo xam ne e, mënu fee raw léeg-léeg dama naan ndax ñi ngi settantal sëriñ bi bi muy woote ci xam-xam bi mu ciy woote dayoo bi fi mu ko àggale léeg-léeg dafa mel ne ñu baree baree baree bari duñ ko settantal ndax day bind lo xane amatul muslimina julit yep mud len ci wo waye lek lek mu beral murid yi lek lek sax mune katabtuha li awladi ikhwani di bindal gone yu ndaw yi njabot gi ko xamne ba nga ne bëreet di bind dañu gis nga def tasawudu sikhar wax ak ndaw ñu ndawee ñi tasawudu subaan loo leen di wax yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an huda wa bil ulumi istaxilu waaye loo leen di wax yaa ayuha subaan in khiftum khajal fa xaddimu taalluman ala amal loolu lépp bépp ndaw bu yaakaar Serigne Touba war nga ko bàyyi xel bal ndawal jullit bu ne looy def na ca xam-xam jiitu diine ji diiney jàng la xeet wi xeetu jàng la ummatu iqra yonent sallallahu alayhi wa sallam iqra bismi rabbika moo jëkk a wàcc ci moom sëriñ bi yooyu yii la jëkke woo nit ñi ci xam-xam léeg-léeg nga gis bu doon wax yu nu jamono tey danga naan dañuy toog ba mu yàgg sëriñ bi bind ab communiqué di woote ci xam-xam su doon nëgënee kon xay na ca média yëpp obédience ca heure ya gën a fréquent la ko fa yóbbu ngir ñu yëral ko ko booy gis ni mu koy waxe ni mu ko ñoree wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu li taxlamu ayuha almuriduuna innani amartukum bittaallumi fa man qabila fal yaqbil wa man lam yaqbal falaa yalumanna ila nafsahu fi laaxirati sëriñ bi ne asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu ne yéen murit yi yéen murit yi yaakaar naa kenn ko yaakaar sëñ Tuubaa ku jàpp ne bokkoo ci amut yéen murit yi ñu ne ko Mbàkke loo ñuy doy mu ne yéen ñëpp na ngeen yëg ne digal naa leen ngeen sàkku ji xam-xam lii ma wax nag ku ko def alhamdulilah ku ko defatit bu ëllëgee yowmal qiyaam te kanam borom bu mu yedd kenn ku dul boppam waaye man digal naa leen loolu daf koy def di ko yaatal di ko yaatal di ko yaatal di ko dolli ba da ngay defé ne ci lool rek la nékkon gis nga wasiya bi ma doon wax mu ne wasiyatun nafi'atun katabtuha li awladi li awladi ikhwani barakallahu taala fihim wa fi jami'i ahibai llahi taala lum leen wax alaykum bil ilmi wat taaddub wal amali salih duuna al aib kon soññi ndaw ñépp ci xam-xam wax ca lu yaato yaato yaato yaato yaato ba mu ca waxee ba ak àggalit daf caa teg ne xam-xam mii ma leen soññi nag warlul naa leen ne danaa leen bindal li ngeen ci munta ñàkk a xam lépp te bind na ko na mu ko waxe woon mu defe ko ni bind mu yaatoo yaatu defe naa ne téeréem yi ku ne xam na ko yooy yii ma ci tudd ak yeneen yu bari yu mel ne ñoom lépp li ñuy aajowoo ci xam-xam sëriñ bi bind ca kon ba mu ko bindee daf ko bind ngir ñi di ko jàng ak di ko jëfandikoo noonee it la ca daal di jubloo nag ci di ko jàngale moom ci boppam moom ci boppam yaakaar daara yi daarul alimul xabiir ndaam daara yi sëriñ bi kon loolu moo may dugal ci taxawaayam ci njàngale mi ak yaatal yi ak jàngaleem alxuraan ak xam-xam euh, lenn ci contribution wu yoonu murit sëriñ bi ci boppam daan ko jonjoo ba tagat ci mbolo mo xamne fa lay alhamd xam nañu jub nañu doy nañ ko seuk mu tassare len ci bokk na ci kon ku melne serigne dam abdourahman mo moom mu ñu tudd mu samp ko ci darul alim alkhabir sampin wu am solo wo xamne jamono war na koy fàttaliku ndax nit lu muy samp te bëgg mu wéy daf koy tek ci ay keno la ca jiitu dafa génn këram jox ko kër gi loolu di lu am solo lu am solo ku ne xam na ne ca waxtu woowu kon daara ja mooy kër ga gën ca dëkk ba ci wàllu infrastructure mu digal ay kilifa yuy ay mag ci yoon yu mbooloo topp leen ñu sancal leen ay daara ñuy liggéey di fa yóbbu mu di leen mu di ko taxawoo donga ya ca la waxe woon waxam joojee ba mu koy jox lenn ca dongo ya muy bu ñu buun buñ jagam buñ saalañ ñooy jàng li gën nañ dund dund bi gën nañ dund dund bi gën waaye loolu nag dafa def ay alliés yuy tax mu mën a am da ko tegal ay alliés yuy tax mën a am sëñ Abdourahmaan moomu yàlla na yàlla dolli ay leeram liggéey liggéey bu rëy rëy rëy ci jàng ak jàngale mbolo mu bare bare bare bare bare genn ci mom mu sax ca dirub ak dundum ci minul bakhil khadim ku ca delu da nga fekk cheikh basir wax na ci taxawayam ci alquran bu yaatu di ko waye diko di ko dundu di ko li mak ci njabotuk serigne bi ak njabotuk mak ni ko topone ñu ci bari jaare ci mom mu jangal ñoña ba jangal njabotuk ñen ci ñoña ba jangal njabotuk ñen ci ñoña kon muy daara ju rëy ju taxaw taxawaay bu am solo ci jàngaleem alquran ak xam-xam waaye borom daarul mooti maam Thierno Ibra Fati moom it taxawaay boobu la amoon ci ron sëriñ bi moom dañ naan sëriñ bee ko léppal moo ko jàngal moo ko yar samp ko muy ab jàngalekat samp ko muy ab jàngalekat ne ko naadaytukal yawma yaa ibrahimu allim fatan yanfahu tafhimu képp koo xam ne mën naa jàng te su jàngee xam nanga ko jàngal mu dal di teg am ngàngam ca loola tax fu mu nekk muy daara di jàng ka jàngale dégg ngeen léegi ci ñi fi jëkk a jaar tey wax Cheikh Mouhamadul Moustapha loolu ñu ne Cheikh Mouhamadul moom la wax ci moom mook Cheikh Mouhamadul Fadal ñu bokk ca ña génne ci moom waaye mu bokk ca ña nga xam ne jàngal na leen rakkam ja Cheikh Massamba boroom xam-xam di ngeen dégg léegi nekku ko sëñ Moustapha Diop di waxee Cheikh Mouhamadul Moustapha di bind ay laaj muy tontu boo ko tiimee dangay xam ne ñii seen niveau dëgg-dëgg beneen mbir la woon waaye daara yi borom daarul muxti jooju mag ñu bari tey ci yoon wi mel ni Cheikh Mokhtar Bintaloo seigne ma bandi njaay ba ci seigne mamar marse ni nibraasu njambour momit borom daara ju mak seigne balla coro seigne mo roqaya busa seigne masamba assa asta seigne cheikh afsa mbakke sëñ amsatu jaxate mbolo mudul khamgen jeex ñep ndax xam ngeen ne mom bi daf ko mujj samp bi mi dem muy ñi yoon wi di weyel liggéey bi moo tax mbooloo mu baree baree bari moo génne ci moom bi mu sañcee daarul moxti nag rawatina bi mu sañcee daarul moxti yaakaar naa ne ñi xam dañuy xam ne daarul moxti ak rayon yi ko wër day mel ne dañ naan penkook soowu ñeenti wet yi fu ne mën ngaa daw 40 kilomètres yoo xam ne loo fa gis ceernoo lenn li mooma la ca des ay doomama la ca des mag ñim yaroona fépp di daara motax amna kenn ci njabotam da mujj da nan léegi dañu war kon di wax du yuurul moxti du yuurul moxti ah kay bat bu jamtalu la bami kenn la nekkon daru mu'ti waye bi ci yare njabot gi lola mo continuer ba daram joju momit di jenn ci waccu kay yu makki waye al alim al allama wal mufti al akbar Cheikh Mbacké Bousso momit di kenn ci njabootuk sëriñ bi teel a taqoog moom lool sëriñ bi mës sa umpale ci daram ba ni mu ko jegee ci Mbakke sëriñ bi di ko digal muy dem ci barab di fa dolli ci xam-xam di ñëw ba ni mu ko sampe muy jàngalekat bu mag di mufti moom it sañ ci fële ca Azhar ñu koy wax lasar tey siñ Sëñ Ceerno bu sëba ba ni mu ñëwee Gédé ak fépp fu njaboot gi nekk daaray sëñ Mbàkke bu sa jë yàkkali ko fa muy boroom xam-xam boo xam ne moom it liggéeyal yoon wi liggéeyal diine ji liggéey bu rëy rëy waaye liggéeyal sénégalais yi bokk na ci bi muy bind ci wàllu waxtu mu wax ne bëgg koo sukkandikoo ci ay mbind yu jóge fële waaye def ba ci lu ëpp fanweeri at ak ñett sukkandiku ci lim xam def tajribaam ba génnee waxtu yii ngeen gis ñu di ci sukkandiku te tey mu nekk lu wér wér noonu la ci tàggate mbooloo ci fànn yépp daan féetewoo sëriñ bi ci di ko tontu laaj yi te laaj yi daana bàyyi ko fu nekk di xóote nu ne waaye sëriñ bi tàggatoon na ko ba xam mooy kan ba doyloo ko ci wàllu ifta loolu rekk doyoon na moo tax euh, mbooloo bi génne ci moom moom it di ay boroomi xam-xam yoo xam ne lu ñuy liggéeyal xam-xam ci diine Eh, ña ngi koy def mbooloo mu baree baree baree bari la mbooloo mu bari la ku mel ne sëñ Mouhamad dem bu njaaree moom it ku ne xam na xam-xamam donte jaar na ci sëriñ mbakke bu sa moomu am lu mu fa jël jaayanteeg sëriñ Touba bi nga xamee ne sëriñ Abibu Mbàkke al imam andi na ab kaamilam jox ko sëriñ bi ci 1916 mu daldi di ko koy jébbal taxawal ko daaraam moom it mu daldi yor ab majlis taalim boo xam ne bu ama am solo la di boroom xam-xam bu rëy boo xam ne ñu baree baree baree bari jaar nañu ci moom ci njàngum xam-xam mu dundalit patrimoine bi mu fekkoon mooy bind bind lenn li mu def ko ci wolof li ci des mu def ko ci ay xam-xam yu xóot yu yaatu ak njaboo tamit wéyeele noona sëriñ Mor Mbay Siise defe naa ne kenn du wax daara te waxoo ko daaraam ja wàccukaay la woon fu nit amee woonu mar jaaxle bëgg a jàng am ngay moye amoo ko xam nga ne boo fa xisee dugg am nga wàccukaay te xam-xam boobu rekk koy yitteel ci yow ba la bàyyi koo ci moom ci ay daara tey jii xëy na manees na ne bokk na ci yi ci gën a mag sëñ Malick Dieng ak sëñ Moustapha Guèye waaye mbooloo mu dul jeex moo génne ci moom soo demoon ci sëñ Mor Sey Nibrasu Njàmbur boobu ma doon wax moom it nga xam ni gannaaw bi mu yaroo ci sëriñ bi euh, sëriñ bi samp ko muy ab jàngalekat boo di ko booleeg ay mbooloo mbolo mu bare bare bare bare bare jangé nañ ci mom mak ñi àndoon ak sëriñ bi doy ko jox ko seeni njabot so démé ci ku melni sëriñ Masamba joxoon na ku melni sëriñ Modou Moodu Khari sëriñ Mahmoudan Jobbe borom darul muhti joxon nak sëriñ Aydara ak ba ci sëriñ Abdou Karim Mbacké bu Mbacké Bari sëriñ Mor Gawan Mbacké bu Darul Salam, sëriñ Cheikh Abdou Mbacké bu sëriñ Abdou Jadoyoli, ak mbolo mu bari moo xam ne moom it génne nañu ci daaraam taxawalaat ay jàngu loola di tegtale jàngoom bu réy ba sëñ Mouhamad Lamine Gaye jëmmooy moom it boroom xam-xam bu mag di xakimu wolof boo xam ne xam-xam yu xóot ya ca biir téere da ko doon tënk di ko jegeel mbooloo mu baree baree baree bari ñoo jaaree ci moom bokk na ca sëriñ Habib moom mu ñu doon tudd léegi ak ba ci sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana ba ci borom xam-xam yii ñu fi tudd xam ngeen ne jàng nit day jaar ci daara ji dem ci jee moo tax su suñ ko doon topp ñu bari niñ leen fi tudde woon da nga dégg ñu tudd leen ci daara ji tudd leen ca jële ndax moom it ku mel ne eh, sëñ Abdourahman ak sëriñ Abdul Qudus borom daarul moxti ak sëñ Cheikh Fati Fall eh, jaar nañ ci moom waaye sëñ ma Ndumbe ba ci sëñ Modou Fati Xari mel na ne am na lu mu fa jaar sëñ Abdoulahi Jaxate ak borom xam-xam yu baree baree bari yoo xam ne ba ci sëñ Mbay Jaxate jaar na ci moom euh, sëñ Mamadou Lamine Gaye jëmmooy moomu moom it muy loo xam ne lu yaatoo yaatoo yaatu la ci ñi génne ci moom ci xam-xam bu dee sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana moom it mujj nekk boroom xam-xam bu takkook sëriñ bi jege ko fekke lu baree bari defal yoonu murit lu rëy nag mooy bind lu baree bari tey jii lu bari lu dee si dellu ci yoon wi ba ci waxtu wii ñu toll nga xam ne xutbatu Wamsasine eh, dafa mel ne man dama naan ndax ba tey murit yi dégg nañ ko ni ñu ko war a dégg wala ndax ñu ngi koy jàngat dëgg-dëgg fan yii ñu toll suñ ko doon jàngat dëgg-dëgg day mel ne murit boo seen ci moom bu delloo si woon ne ci waxtu yii la Seexul Xaddim doon wàcc di dellu ci boroomam nga di ko dundaat kon leneen lay doon loolu liggéey yu rëy la ci liggéey moom it mu nekkoon boroom xam-xam boo xam ne euh, bu yaatu woon xam-xam te yaatu dégg naar yu bari daan wàcc ci moom taxoon daaraam ja lool ngir ku da ngay jariñ ci xam-xam ci xam-xamam di jariñu ci boroom xam-xam yi gànnaar ya nga xam ne ñoo fay ñëw euh, doy na ca rek ne cheikh Ibrahima Mbacke moom cheikhul Khadim ak cheikh Mouhamadul Mourtada jaar nañ ci moom waaye cheikh Sidil Muxtaar ak cheikh Mouhamadul Muntaqa mii jaar nañ ci daaraam. kon momit mu yoron daara ju rëy joo xam ne noonu Habib mi ma don tuddu defe naa ne moom génération bi xamnañu luy daaram donte nak génération yi jëkk xamoon nañu ko ndax euh ci gannaaw serigne bi touti rek 1932 defena le 12 Sawal bisu teggu xéru jomaaji ci la ko Cheikh Mouhamadoul Moustapha Jalilu mu joge Jurbel ñëw ba mu dikkee sëriñ Abdou Lahad mi mu yebaloon mu jëli ko sëriñ Abdou Lahad moo jiitu ci ay dongam ku jàngal sëriñ Abdou Lahad ba génération bii xam sam njàngale nag ku ne xam ne njàngale ma yàgg na te ca sëriñ Abdou la tàmbalee kon ak sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Mbacke Madina sëriñ Abdou Lahi Jaxate mbooloo mu baree bari ay boroomi xam-xam sëriñ Abdou Lahi moom sëriñ Abdou Lahi Jaxate moom daa daa dégg muy wax ne sëriñ Habib moom ilmul laduni la yor nee na bi ma demee ci moom fekk mu yor ilmul nii la ma jàngoon lépp dama koo jàngaat ci moom dafa dem tam mel ne ku tàmbalewaat ci moom njàngoom muy boroom xam-xam bu mag alhamdulilahi rabbil alamina def liggéey bu rëy rëy rëy waaye noonu mu amee waa kër sëriñ bi defe naa ñi jiitoon wax nañ Cheikh Mahamadou Moussa loolu moo tax daanaka del ciwuma ci moom ci taxawaayam ci xam-xam ndax ba sëriñ bi door a làqu rek sëñ Maxtaar Jang Goyaar moomu ba mu ko yóbboo tindoo di daara jooje foofa la sëñ Abdou Lahat moomu bàyyi koo ñëw euh, ci sëriñ Xabibu ñu baree baree bari jaar foofa ca moom noonu moom ni mu yitte woonum njàngale moom Cheikh Moustapha feeñ na ci wax ji lu bare bari ndax damay wax ne man dafa am ñaari lu may bàyyi loo xel ci moom ci misaal sama way jur ànd naa ko wayjuram siyaare si siyaare ko mu laaj ko fu mu njàngam toll yëkkatib kaamil jox ko ne ko kaamil bii nag mayu ma la ko saraxuma la ko ci hubusle bi la bokk danga nga koy bind delloosi ko xam nga tey jii gone gu siyaare ji xalifa général de murid mu yëkkati kaamil jox la ne la góorgóorlul mokkal bind ko indi lu rëy la ba mu jàngee ba mokkal indi kaamil ba jébbal ko ko 1939 daf koo digalaat mu ànd ak daaraam ñëw mu jox ko daara joojee ca Tindodi kon taxawaayam ci xam-xam kenn mënula la ko wax nu mu toll noonu la ko njabootu Sëñ Tuubaa gépp doon defee bi ma tuddee Sëñ Abibu daanaka waxuma ay marxalam daaraam ak daaray Sëriñ Sohaybu moom day benn Sëriñ Sohaybu bu defe naa njàngaleem moom it ku ne xam ne ni mu ko defee ak ràññeeku gam ci am mooy di dugg ci kër sañ Tuubaa di dajale njaboot gi ay nit yu war a bokk jamono nga dajale leen ci jenn daara jàngalaloo leen kooku liggéeyal na yoon wi liggéey boo xam ne bu am solo la sëriñ Saalihu nag moom kii man la ci loolu koo xam ne 1933 ba bi mu fi bàyyi ko diggante boobu nëpp lu fi benn yoon defe naa 1933 lañ xam ci daara ju njëkk a sos ca got ngéejaan njurul njàppandal ndooka lagan ba ni ngay ñëwee ci xel koom ñaar fukki daara ak juróom-ñett mujj làmb lu mat fukki junniy nit ak ñaar mujj barkeb ab liggéeyam akuk njàngaleem doy na ci ñu ne diggante bi nga xam ne nee nañu wàcc na ab liggéey ak biñ koy ñaanal ba noppi kilifa yi bi ñu àgg fekk nañ ñaar téeméeri kaamil ak juróom fukk yoo xam ne ñu ngi nga xam ne bàyyi na ñaar téeméeri kaamil ak juróom fukk en cours yu ñuy bind bokkut ak ñay beqi bokkut ak ñay jàng xam-xam ak ñay def leneen kon moom it ab lu ñu luñ mënta ñàkk a tudd la noonu lay yaatoo ci xam-xam defe naa ne boo demee ci jumaa ji sëriñ As Jaxate euh, sëñ Moustapha Mbay muy daare sëñ bay Longoor jaak daare sëñ Amsatu Ja nga xam ne ñoom it la génne ci ñoom kenn xamul nu mu toll Euh, boobee ba léegi nga xam ni euh, sëñ Xamsatu ca 1912 bi sëriñ bi door a ñëw njaareem la ko yebal ne ko dama bëgg nga dem Touba di fa jàngale alxuraan di jullee néew ya ak di leen miraas di jul di jiite julli ayit ya boobee la daara ja sosu woon ba ni mu fi indee sëñ Abdou Lahad boole kook sëñ Alsaan Jaxate ba ni mu ñëwee sëñ As ba tey jii fu njaboot gi nekk euh, loola ne fa kon yooyu dafay tegtale ne yoon wi lépp xam-xam la woon mag ñi amoon relation ak sëriñ bi ñëpp jàngaloon na leen yaroon leen ñu doon jàngalee ko yare loolee nag moo law ba tey jii waaye itte jooju nga xam ne moom la kilifa yi itte woo woon loolu te bàyyi ko xel loolu moo war a yeesaat moo war a dundaat ñu xam ne yoon wi yoonu jàng la yoonu xam-xam la te daa mel ne fii jamonoy xaw a toll sëriñ bi gisoon na ko ndax néew na fu ñu gisee sëriñ bi di wax mel ne kuy xaw a ñaxtu te digganteem ak seytaane mi ngi wax ne mu ngi xiirtal murit yi ci ak doyadal xam-xam ak wayefal ko ku ko def yaa ko def waaye jëliwoo ko ci sëriñ Tuubaa jëliwoo ko ci doom sëriñ Tuubaa jur jëliwoo ko ci ku sëriñ Tuubaa yar asalaamaaleykum wa rahmatulah